drapeau Russie ak drapeau France bu bés bi jotee ñu taal drapeau France bi yore drapeau Russie bi loolu mooy xeex bi gën a gaaw ci xeex bi ndax ñi ngeen di xeexal amul leen temps di réfléchir wax ju bëri gi ko ndax grand atténétan wax ji mu wax dafa yomb ku nekk di wax ay stratégie ñaari xeex yu daal laa leen bëgg a wax te mu gàtt te maa ngi jégalu si kaddu bu gàtt bi ma wax maa ngi lay bàyyi nga dugalaat keneen quoi caaw. jaajëf jaajëf jaajëf waaw bu ñëpp defee noonu rek mu neex bu ñëpp defee noonu rek mu neex. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. ok man si kakaatoo bi laa bëggoon a wax. Eh, waaw léegi man li ma gis nga am na am na ay kër yu bëri yoo xam ne il faut ngay manqué seen force. Uh-huh. man déjà man am naa sama benn sœur bu nekk foofu Sénégal man damay dinaa dinaa dinaa yónnee oto oto xale yooyu ñu marque foo sam ba mu fees mais dama bëgg a xam fan lañ ko kan lañ ko mën a jox ak yëpp man man je suis prêt à payer nit ñi sax dafa leen fi ay paanu paanu paan ñu ñu ñu ñu su solol ay ay ay kakaatoof léegi xaw ma nag ni ñu koy koy coordonné. maa man je suis prêt léegi ne képp ku nekk diaspora bi am sa mbokk boo xam ne dañuy manque foosam de chaque fois te <coughs> dafa cher ay vingt cinq mille ngay fay pour ñu manqué la sa force uh-huh. ku nekk na na sponsorisé euh, mbokkam. mu ngoog kooku xeex la après après ñu gisee yooyu def ko karaatoof. après ñu gisee suuf ñu créé. waaw ok d' accord. créé entreprise si suuf. sponsorisé kër yi waaw ayca. jaajëf jël naa sa numéro bu ma paree dinaa la suuf ñu xool nuñ ko cotisé. voilà kii yii sax idée yi lañ bëgg quoi kii andi na boo xam ne ma ko woon. nañ fexe fayal nit ñi seen douce yi manque ko am benn entreprise ci àll bi di sol day ci ay mbuus allo waaw jaar naa la jiji ñu ngi delloo jaar waaw tay moom damay woote rek may doog nga jël wala ah. salum salum wuy ma euh, dafa am lenn lu ma bëggoon a wax rek muy hmm. euh, gis nga gis nga ñun dafa am lenn loo xam ne à chaque fois moom moo ñuy moom moo ñuy delloo ginnaaw xam nga muy lan hmm. muy que dañuy commencé affaire bi ba mu leen nekk carrément instant war naa mën a sotti ñu dem tëdd suñu kër di nelaw loolu la ñu war a bàyyi affaire bu commencé nañ ko yeggali mu jeex benn yoon moo gën ñuy toog ku ci nekk dem sa biir kër naan da ngay naan caayin nelaw bëgg a xëy suba defaat ne la mënul nekk xeex xeex la boo ko commencé mu leen nekk carrément objectif bi fii la cible bi fii la mais xoolal ñi ngi ciy rey nañu ci rey après ñeneen ñi dund dund après mu jeex Sénégal normal une bonne fois pour tout man loolu laa gëm quoi mais nañu bàyyi di commencé après bi benn jour ñaari jour ñun ñu toog ku ci nekk nekk rek di vaquer ses préoccupations waa ji demaat defaruwaat ñëwaat dalal suñu kaw ba ñoo indi ay problème affaire bi de Ousmane Sonko kese non non non bi c'est le Sénégal la patrie avant le parti nañu jiital suñu nañu jiital suñu suñu ci Sénégal ba pare drapeau bi avant tout buñ ko commencé nañ ko yeggali s'il vous plaît buñ ko commencé nañ ko yeggali deux jours trois jours quatre jours cinq jours coow li jeex mais benn fan. demi journée après mu jeex gars yi ñëwaat na ma après ñu jàll ci leneen kenn du ko fi defati man boog dama part personnel ñi nga xam ne xam naa leen bés bi nga commencé incha allah rabi cinq jours dina mat affaire bi jeex ñu jàll ci leneen beneen bi ci des mooy bëggatuma ñuy wax ay affaire de comme comme comme waa waa beneen boor bi ñi nga xam ne moom seen seen seen i poste lañ fi nekkal ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy seen seen kër yi rafet seen oto yi rafet mooy waa waa waa waa sëriñ ji man ñoom ñoo ñoom dama pare ci ñoom parce que neutre égal naa fekk loolu laa ma lu may wax maa ngi jégalu ñëpp jaajëf jaajëf goor jigéenu goor jigéenu APR yi ñu ngi fépp doomeraam yi ñu ngi taxawal ci live yi rek waaye di ngeen ñu seen day def fi di ngeen fi am dara alal ma jëli ñi appel en absence asalaamaaleykum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tawanam Wah, ca yaa ngi ci biir yow lañu dégg alhamdulillah maa ngi doon seetaan sànq quoi waaw boo mënee wàññi loolu sa wet ndax ñu mën laa dégg waaw waaw te boobu léegi après déggantuwaatu ñu boobu léegi déggantuwaatu parce que dañoo xam ne gars yi ñoo ko jàppoon sama yeneen Wah, yi éléments yi yaa Wah, live yaa ngi live bul bul tudd Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. comme yaa ngi en direct nii. waaw bàyyil baal après ñu déggoo kooku mu may woo waaye xamul li xew xamul ne en direct la ñu ne asalaamaaleykum. waaw Djily. waaw ñu ngi ziar. waaw dellu ziar waaw dama bëggoon euh, joxe ay quelques kii rek xam nga xeex bi boobu ba tey damay gis booy ñi nga wax rek naan xeex bi xeex bi mais xeex bi gis rek xalaat TV daf koy def vidéo bi bëgg dee Sonko la même wax na ko il faut tamit Sénégalais yi. ñu xaw a nekk ay nit tuuti di déglu quoi parce que bu kii ñëwee wax lii kii ñëw wax la xeex bi benn stratégie képp la résistance ni ñu koy defee lenn képp la c'est simple mooy kenn ku ne fa nga dëkk def fa résistance jeex na jërul di dem ay kër góor gi kër nangam bu ñu ko defee ñoom ñoo koy jóge sax force mais ñun ñëpp mun ñoo jugandoo ne nañu dem ci kër góor gi loolu mun ta nekk duñ ñu bàyyi ñu bugg ko dañ ko defoon échoué defaat ko échoué bu ñu ko defaat cette fois ci dañuy échoué la même chose résistance bi lenn képp la nañ def résistance boo xam ne si vidéo bi ci xalaat def sànq na ko ñëpp dem seetaan noonu képp la kenn. xaaral ma teg ko xaaral ma teg ko. taxaw fa nga dëgg ko teg ko quoi nit ñi déglu ko noonu la ñuy résister mooy kenn ku ne na taxaw fa mu taxaw nga résister nga dëggal sa bopp lépp loo xam ne si état moom la dañ fekk ko teg ko loxo wax bi day jël ak. ayca ayca ñu déglu ko ñu déglu ko ñu déglu ko ñu déglu ko. ñu déglu ko après ñu waxtaan. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw comme ni leen ko annoncé woon ci lu war a doon taxawaay bi saa yu réew. allo ji. waaw. waaye yaa ngi ci direct bi. waaw. waaye xoolal man après dag may wax ci suuf ban option laa lay mën a sànnee affaire bi xam nga ban ban ban ban compagnie quoi. d'accord ok monogram wala ria wala vecteur maa lay woo fan yëpp mais doo jël sa téléphone bi quoi mais. waaw non xam nga rek parfois mun dama mun dama mun wuy wuy ñëpp mais sinon pour mu gën a gaaw rek. waaw ku jaar paypal di nga di nga cotiser paypal rek ba ma laajee email rek ma envoyé la paypal moo gën a yomb. waaw yee beneen affaire bu ma bugg wax nii mooy xoolal xeex bi lu tax mu agsi ba fii mooy Sénégal yëpp dañ ko war a jàppandoo dépenser la ñu war a arrêté. man sama ndey ba ma woo di ma waxu dépense dama ne ko carrément ay doomu jàmbur rek nga dajale seen ndey yeeg seen bàyyi nañ leen jël bu ñu génnul dem xeex du ma ci yónnee ci kenn dara xam nga gars yi dañu war a xam loolu barki arxuraanu karim bu ñëpp téye woon dépense yi Sénégal na ñëpp téye dépense yi bis ni lundi suba na ñëpp téye seen dépense buñ ci jox kenn mu lekk mu naan billahi dinañ génn xeex ji dinañ téegal ndey Macky Sall mu jëg fe mais tant ñu ngi yónnee ay dépense ah dépense yooyu chaque weer Macky Sall dina am deux milliards yoo xam ne moom lay déggalaatee seen tey ci biir population bi mais bu dépense duggul dara duggul ah Macky Sall la amul lu mu jox amul ku mu lu mu géree kenn mais tank ñu ngi yónnee ay dépense chaque weer Macky Sall benn deux milliards boo xamante ne nii ci xaalisu Modou Modou yi la koy gérewaatee wa réew mi waaw di ci jox ñi ci nappaaje di ci nappaaje di ci ger ku mu neex waaw na gars yi arrêté dépense bi te dajale pou bi safal ko ba mu saf def ko ci ay mbuusu oyof pour mu teel a tas waaw pou bi xam nga leen moo tax ñu koy def pou yi ma jox leen secret pou bi ak saw yi weer bii nii Macky la le 30 bu ko rëccee barke alxuraanu Karim perte na ci. lu mu mën a def def na ko le 16 bi calculam dafa dafa faussé le 30 bi moo ko dese mars mooy seen weer bu mars bi jeexee pare na ci combat bi moom xam na loolu te pou bi farama maçon maçon yi mag yi puub ak saw la ñuy bañ. maçon boo ci gis puub ak saw lay bañ na gaa yi fartaal puub ak saw yi bëgguñu ko baaxul ci ñoom puub ak saw nañ ko jaxase ba far ñu ñu dóor leen ko. caaw gi. jaajëf ayca wax ci loolu ñu ngi lay waaw waaw li mu wax lu am solo la li li wax lu am solo wax dëgg allo waaw. avant mooy na ma may na ma may ma àggale ma enchaîné ak kii pour mu wax dépense yi lu am solo la. li wax ci dépense yi wax naa ko ba tàyyi bu ñu téye woon dépense rek Macky Sall wàcc. coow li coow li mooy dépense yi ñuy yónnee diaspora bi suñu ko téye woon ñaari weer semaine Macky Sall wàcc ñi xeexul ñëpp parce que ñi ngi lekk ñi ngi naan bu weer bi dee mu jóge ci diaspora bi waa diaspora bi ñoo fi bàyyi Macky Sall ndax ñooy yónnee dund bi dund bi ñuy yónnee Sénégal bu ñu ko téye woon ñëppay génn ci mbedd mi Sénégal day am crise sociale bu mag a mag a mag a mag mais crise boobu mënta am ndax diaspora bi yónnee dépense weer wu nekk kon diaspora bi yéen yéen a fi téye Macky Sall yéen ñi bëgg mu dem yéen ko fi téye ndax li mu laaj pour mu jógee fi defu leen ko mooy téye seen loxo ci dépense yi weer wi bu ngeen ko defee seen mbokk yeeg ñëpp a jóg xeex ndax kenn dootul lekkati sénégalais yi tànk demul ba ñàkk lekk du jóg mais bu weer wi dee Italie yónnee France yónnee Amérique dépense yi dem ñuy lekk du ñu génn ñu fenn ndax di ñu bëgg dafay yomb téye leen dépense yi téye leen ordonnance yi leen lépp bu ngeen ko defee ku leen woo bu leen ko jël jugleen leen xeexi bu ku xeexiwul du lekk loolu mooy xeex bi tamit wax naa ko ba tàyyi mais li mbokk mi wax dëgg dëgguwér péng la wax naa ko waxati te seen njambaani kakatoo fi bu ngeen ci mënee dëbb kaani ba mu saf jaxas ko ci njambaan bi au lieu ngeen suukar ko kaani ngeen ciy def nga xam ne bu dalee ci sa kaw non seulement day xasaw xeeñ fu nekk microbe waaye day saf sàpp kaani def leen ci kaani yokk ko ci kon bàyyil ko mu continue dugalal kooku Eh, let's not let's not wait a minute wait a minute maareete ñu jëlewaat keneen ñu jëlewaat beneen mbokk ñu jëlewaat beneen mbokk ayca ayca deux minutes deux minutes rek deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes three nine coupé na di four one seven seven waa ma ne four affaire affaire ni muy ñëwee sa dafa gën asalaamaaleykum allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. <coughs> waaw man maa dellu si tuwaat may rek pour uh, temps yi yëpp maa gis ci live patriote yi ñuy wër di véhiculer drapeau russe bi ñun bu ñu dégloo bu ñu liiree projet Seydina Ousmane Sonko bi wala ñu déglu ko sax pour ñuy jàngu dégg nañ mu wax ñu ne ñu dañoo war a jotal suñu indépendance ñun loolu moo tax ñu ànd ak moom kon nañ leen ci bàyyi xel bu ñu jëlee drapeau russe ñu jël drapeau France ñu taal ñu dem jël suñu bopp jox ko russe mais mu ngi mel ñu changé maître jëlaat beneen maître teg ñun soxlawuñu maître dañoo soxla libre liberté dañoo la jot suñu bopp jot suñu moomeel suñu alal ñu tëyal ko suñu bopp daal di xoolaat euh, Sénégal d'abord Afrique d'abord ñu xool ku ñuy collaborer Louis américain wala français koo xam ne dañ lay jaay ku ñu gën a au plus offrant ki ñu fay lu ëpp li ñu arrangé ñu jaay la jëflanteeg yow ñu dem sur le marché international ñu génn France pour dem dugg Russie bàyyi leen seen yooyu ngeen di véhiculer France ak Russie ñoom ñëpp a ci bokk yem ku ci nekk da ngay ut looy lekk si parce que fi mu nekk nii Sénégal ñëpp ko soxla guerre baa ngi tàkk Europe pétrole baa ngi nii Russie téye pétrole am ñii boycotté ah ci Russie jëndatuñ seen pétrole ñi Russie tey pétrole am kon ñëpp a soxla pétrole ak gaz bu Sénégal bi kon lañ leen faru te ñeew bàyyi leen idée yi ngeen véhiculer gis ngeen drapeau Russie boobu gënul suñu bergeau rouge bii drapeau France bi gënul suñu bergeau rouge bii nañ leen may Seydina Ousmane Sonko buñ ko fi tegee moom Poutine ah mun nañoo yóbbu foo xamante ne Poutine xëy na yóbbu fa dëkkam wala bu fa yóbboo dëkkam tam mooy loolu gëm leen seen bopp te ngeen dëggal seen bopp te ngeen bàyyi infiltré yi nga xam ne ñooy dugg naan Russie Russie Russie mais bàyyi leen ñoo Russie on a besoin de notre pays on a besoin de travailler li ma waxoon nag bu leen fàtte wër ndomb bi bu leen fàtte tamit ku ci am sa dërëm sa ñetti nga nekk Sénégal nga am sa 10 euro nga nekk bitim réew wala nga am sa dollar wala loo mën ci am def ko ci biir xeex bi ñun ñëpp a ko bokk nañ leen bàyyi tamit naan nañ leen xiifal suñu yaay seen papa nañ leen tey ordonnance disons o chose qui est raisonnable quand même le peuple a déjà faim

Sénégal nekk ak xalaat yii teer ñëw na sama góor gi ñëw na de allo allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi lay ziar yaa ngi ci biir maa ngi lay ziar di ji ñu ngi lay ziar waaw man li ma bëggoon a wax mooy eh, damay faral di déglu bu baax eh, les activistes Euh, Akhenaton dafay wax loo xam ni tout le temps tout le temps dañ koy dégg di ko déggaat di ko déggaat di ko déggaat yow nga fiy ñëw tout le temps déjà entre parenthèses laay daf dama am mbégte tey ci ni ma la gisee parce que fan yi yëpp gisuma la te xam naa xol neexul donc euh, sant yàlla. Mm-hmm. Euh, problème mu Russie bi ñuy wax di ko exposé am na benn activiste boo xam ne mu ngi tudd Baye Ndiaye je crois moom tamit da koy exposé Sénégalais dafa ñàkk jom dafa bëgg lu yomb gis nga suñu réew mii bu ñu ko xeexalul suñu bopp.

ñoo nekk ci réewum euh, Europe wala Amérique nekk des SDF seen mbokk lijjantiwul leen te fekk nañ leen ba amatuñu leen jox lijjanteetul leen ça aussi il faut y penser xamante fu ñu nekk amuñu fu ñu nekk maa ngi jéggalu nag parce que sama xol dafa jóg ñun nag kon bu euh, nit ñi nekkee bitim réew di yónnee seen xaalis ñu nekk ci kër yi doomu nijaay yeeg doomu bàjjen yeeg doomu tante yi ñàkk jom di ay midi ay heure lu fa ko téléphone yu yor ay ay ay iPhone Pro xëyuñu gontuñu ñu duñu xeex dañuy not xeex laa la wax bu xeex xeexul ñu ñëpp xoonam tee suñu xaalis à un moment donné faut se bouger le cul laa la wax nii waaw bu dee mënuñoo xeex nekk lan fa nekkee na waa kër ga toggul ndambe ñuy puub ñu takatoo looloo fa am ànd jéggalu nag akata noonu nag man moom commandant chef sax xamul laa man waaw te wax fu leer nga ko teg waaw kon nag jaaraama jaajëf waaw lim leen mënal fi mu nekk nii mooy yónnee nga manque force yi buñ ko mënul ñu tee dépensé waaw gat sa gat sa ba keroog ñu am ma nag indépendance sinon buumu jàmm gi dina métti ñun faw faw faw dootu ñu libéré ci kër àdduna waaw maa ngi jéggalu nag jaajëf jaajëf jërëjëf yaay boy ayca ayca ayca ayca waaw. ayca ñu ngi lay déglu. alors dëgg ziar naa la. ñu ñu lay jaajëfal. maa ngi doon woo keroog la maa ngi woon Kër Masar. mooy suuru keroog bi quoi. Mhm. waaw maa ngi lay jaajëfal mais xam nga man lan laay wax patriote yi. ak ñu ngi koy jaajëfal quoi sànq déglu nañ ko maanaam damay wax gars yi ne xeex bi bu ñuy ñëw rapport moo boo yaakaar ne boo génnee gars lay def dara. loolu ni gars yi di gën a ñëwee rek day gën a nekk sécurité ci ki génn loolu dama koy jox gars yi quoi ndax nu ñuy gën a bëree ci terrain bi rek dañuy gën a am sécurité ku nekk da ngay sécurité sa morom. te day tax de dootuñu ñeme te démb keroog Kër Masar wane na ko quoi Kër Masar ñun dañuy taxaw ci rond bi mais gars yi bi ñëwee yegg si quoi dañuy jékki-jékki buñ bëree ñu sànni la Kër Masar après taxawaat ci euh, rond bi mais bu fekkoon rapport bu am doole amoon na foofu keroog konoon gars yi duñ am fitu yenn yi quoi konoon gars man damay wax ne damay ñaawlu quoi génn génnoon nañ quoi mais rapport bi dafa xawoon des quoi te tamit damay ñaawlu euh, ni niñ commencé keroog après ñu bàyyi quoi ah commencé révolution bi ay ko loolu dama koy ñaawlu quoi parce que gars yi dañoo waroon a continuer xeex bi keroog parce que buñ ko continuer woon waxatuñ waxu Macky Sall di wax na tamit perdance so buy dem ñun patriote nañ def le tout nañ def le tout le grand combattant yi damay wax nañ def le tout bu ba doomu aram bu ñu am accès ci prévention ko parce que sànq déglu na benn femme naan est-ce que ñii ay Sénégalais lañ non ay Sénégalais lañ xam nga didi ñun dafa am lu métti quoi ñoom dañuy def seen sale boulot ba pare ñu bëgg am ñoo leen layal loolu waru fi am parce que police Sénégal ak armée Sénégal ak gendarmerie égal violent lañ leen war a tuddee quoi parce que ku mel ni père Sonko nga mën a ñëw tëj weeru otoom loolu sa atu criminel kooku mënuñu la baal amul dara benn yërmande boo xam ne war nañ ko am ci moom ci ñoom man maay wax patriote yi képp ku génn amul benn la tekku dina baal boo dawul dañ lay taal kooku amatul yërmande parce que li ñu def Président Sonko acte criminel te loolu duñ leen ko baal nañ xam ne ñun manifestants yi amul benn tiit wala benn ragal bu xam ne nekk na ci ñun kuñ ci jekku dañ lay taal parce que acte criminel bi ngeen def Président Sonko loolu mënuñ ko digérer ci suñu xol il faut ngeen comprendre loolu te ñu ngi wax le Président Sonko pourquoi keroog ñu la sës bee ci ginnaaw gis nga ko après ñu ñëwaat fii naa ñu ay noo nekk ñu ay Sénégal loolu du wax mais sànq yow wax nga fàmbi loolu mais nekk ñu ay sénégalais pourquoi ñoom ñu nangu ñu bokkul ci ñoom di sol seen tënk di def sal bulo yooyu ñoom ci lañ bokk kon kenn mënul leen ci génne ñoom ñoo ko def ñoom la kon ñoom égal viola kon bu ñuy dajal ñoom dañuy viola comme ñoom dañuy wut suñu koptol bis buñ ànd ak fédération ku ko attaqué dañuy jàmmaarloog yow xeex ak yow ba gannaaw suba amul luñ ciy daw loolu nañ ko xam xam nga ñoom bépp patriote xam nga ñoom dinaa la wax dinaa la wax dinaa formation ah? lan moo ci bokk ñoom xam nga ñoom dañ ah. leen wax na yéen am droit rey waaye ñi ngeen di rey ñuy manifester amuñu droit rey leen moo tax ñu yaakaar ne ñoom ñoom ñoo war a mën a tiim nit wàññi ay fanam ne ku tëll bal ba pare ñoom kon loolu mooy jeex loolu mooy jeex waaw ah. loolu day jeex tax loolu loolu moom dañ koy arrêté la quoi loolu dootul amati parce que nga Mbacke wax naa ko booy may leen booy Mbacke waruñu jekku gars yi di leen baal damay wax gars suba teel bi ni li ci ëpp solo pour nga leeral ko kaay xalaat tv sax yaakaar naa wax na ci tey quoi mooy maanaam suba bi ni moo boo mënee pare national bi nga pare APS bi même bu ñu waree ay oto yu yàqu wala boo ci arrêté sa oto bi taal ko ci kaw tali bi oto du mën a jàll boo amee ay bërigo boo ko taalee ci tali bi loolu euh, tàkk-tàkk boobu moom may wàññi doosu la crémesère bi il faut gars comprendre loolu moo tax tout le temps li gën a am mooy boo mën mënee am oto nga taal ko ci digg tali ba kenn du mën a jàll tàkk-tàkk boobu ak ay pneu euh, kii bi nu mu tudd barigo bi boobu moom mooy wàññi doosu lacrymogène bi loolu dafa ñuy arrangé te boo amee cocktail boo sagaanee collectif bi di joxe na ci euh, euh, explication yu am solo maanaam boo amee ay pneu yu. waaw nañ ko dégg nañ ko degg waaw nañ ko degg ji nañ ko déglu ji comme ñëpp a ngi naan xalaat xalaat xalaat xalaat xalaat xaw ma lan. nañ dugal kii ba pare waa di. waaw ñu ngi ziar. waaw ñu ngi ziar. jaajëf. ñu ngi lay yaa na woon ma envoyé xaalis ba léegi envoyé ma yow Tiriya bu tase la fan dégg nga yow duul kan dëgg nga. pare nga. yow beneen duul kan nga. pare nga xool leen ko. jël leen numéro bi. waa APR la. waaw duul kan nga. Ah, jël jël leen numéro bi jël leen numéro bi. te tunu nday waa yow yow yow yow Tiriya nga rek. boo pare nga coupé. bul coupé. <laughs> xam nga booy nag dégg nga de waa APR yi xam nga daf ci bari ñoo xam ne ñoom nit ñi dañu ne dañuy xeex au lieu ñu ñëw xeex ñu xeex rek dañ lay woo way ñu ngi fii ñu ngi fële pour nga envoyé leen xaalis ñu dem jaaxaani dem nappaaji seen ay kat lañ bu leen fàtte ne nante ngeen amal affaire de gis nga ku ci woote même bu ma la joxee boo toogee xalaatal ne boo ñëwee nand naa la parce que bul fàtte ne amu leen xel gis nga li ma leen di jox ci alalu mbooloo saa bu sama conscience mais ma keni ki nga jox bokul ci xex damay wat lolu fexé rembourser ko parce que ay doomaram ngeen de gis nga doomaram ji ku mu maral tunam rek lay wër capté nak numéro suma paré nak bo amé fit bo amé fit bu ma nañ def face to face appel vidéo four xaaral ma tagal four four allo xaaral ma numéro am denc allo waaye allo jambar. allo waaw gisuma ci biir. waaw yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. day changé photom de day changé photom waaw ñaan naa lu baax baax. oh changé na photom. gars yi changé na photom. waaw numéro bi capté leen ko ñaari mbir yoo bëggoon wax. waaw. waaw. ayca ñu ngi lay déglu. waaw mbir moo bëggoon njëkk wax mooy ñi nga xam te ne dañuy wax euh, drapeau Russie war ñu ko utiliser ñooñu ils ont rien compris drapeau Russie bi.

Brésil Russie Inde China ak South Africa Sénégal warul rafet train boobu. capté leen waaw te train boobu noonu dëkk yi nga xam te ni léegi yëpp comprendre nañ ko ñu ngi présenté alter mondialiste si di daw ni world order li ñuy woowee nouvel ordre mondial bi loolu nañ nañ dañ ci war a génn donc téegal ndey Macky Sall téegal gouvernement bi yëpp loolu bu ñu jàppee ak Russie pour bis yaa de kese la sur le terrain beneen bi may wax ne mooy stratégie bi pour yeeg saw yi na saf waaye damay bëggoon wax ne car rapide nañ ko mobiliser car rapide daa dañ koy fàtte waaye symbole tamit car rapide feeraayu car rapide yi am nañ doole loolu buñ ci jekkoo ay car rapide nañ leen immobiliser ba nuru yi bloqué accès capital bi utiliser leen comme ay voiture de bélier moo gën a dëgg sax blende policier yooyu téega send ak ak ak ak car rapide ku ci mën a dawal car rapide jël leen car rapide ñu fiir nday policiers yi ak gendarme yi beneen bi nag mooy yónnee naa la message pour sa email paypal ba ma ko may yónnee incha allah comme ça ma contribuer si effort de guerre bi wasalaam. jaajëf jaajëf jaajëf. three nine. three, five, one, one, oh, two, eight, seven, four. Alo. Alo. Oui, allô? Oui, ñu ngi ziar. na yàlla nangu ziar suma contribution lay joxe. Euh, boobu ba léegi damay dégg damay dégg suma compatriote yi toujours kilifa diine kilifa diine. kilifa diine yii ñuy woo suba ba léegi faale wuñ leen du ñu am tuuti ngor fàtte kilifa diine yi et puis xeex bi xeex def xeex bi seen xeexu bopp di nga un peuple kenn du génn xeexal ko xeexam mooy génn xeex xeexam suivant les moyen qu'il a na booy génn di def ay attentat policiers yi ci rond-point yi la ñuy taxaw guddi gi policiers yi fu mu nekk nii seen xeex ñoom suivant nuñ ko bëggee lañ koy defee bàyyi leen nu manifester ba pare

suñu wutiwul ah, suñu ñewul jappalé askan bi nañ leen faté jël xex bi en mai xex ko mu jeex wasalaam jiji ma ngi lay di gërëm bu baax bon courage ci liggéey bi metti na trop mais non la jaajëf jaajëf voilà gars nañ taxaw fi ñu tek bële stratégie boy yi gis après ñu imam dugu tej nañ jël ki après tej bu ma allo allo jiji waaw ñi ngi jaar nice ziar bu baax waaw ayca yow la ñuy déglu. maa ngi sax dafa bëri quoi. gars yi dañu war a jàpp si combat bi. ñu ñuy di wàcc si terrain bi war a jàpp. ngeen joxe xaalis bi gars yi mobilisé bi xamal la manqué meneur la manqué meneur kese la manqué. keroog ñu ngi doon neexal normal jour jour ñu ngi koy di ko tànc et tout. mais mobilisation moo amul ak meneur loolu rek mooy problème mu bi kase kase. ak nu may joxe aussi ci contribution euh, Russie bi drapeau Russie bi loolu dëgg la Burkina Faso soo leen bu baax gars yi dañoo génnee drapeau Russie yi nii gars commencé may jàmm révolution am dëkk bi changé looloo am Mali même chose donc na ci gars yi taxaw drapeau Russie war na mën a génne fépp loolu juste loolu lay tax Russie ñëw gën a jox bët Sénégal donc foofu noonu français yi naan non fii nii ah am na am na beneen am na beneen am na beneen classe bi bëgg a ñëw bëgg a ñëw accaparer dëkk bi te ñoom soo seetloo ba ci biir France Sénégal rek lañ koy defee ak Côte d'Ivoire ak aussi kilifa dine bu leen lijjanti ñooñu ay dëmm nañ seen bopp nañ fi nekkal waaw jar ñoo lijjanti ñoo ñëpp ay dëmm parce que dëkk bi ak lu am nii yëpp arrestation plus de six cent arrestation am si dëkk bi nii kenn waxu si dërëm bu leen lijjanti quoi nañ xeex xeex bi affaire bi jeex na le 30 xeex bi. le 30 mars yi commencé ba fin août état xaw de siège xaw ma de yu ñàkk feere soo ko ñëw yor temps bi ñu ak yu ñëm ñu yor ñu parce que son yi ñu yore ñu ngi nekk Dakar ak ñu nekk Sénégal bi yëpp jarama jarama voilà gars nañ leen déglu fii tuuti waa ma bu ma leen di préparer ndogu man bëgg na moom li ma bëgg na moom aca nañ teg kii après ñu bàyyi imam nañ déglu kii yenn situation yi saa yu réew tollee foo xam ne institution yi nërmelu nañ ndax kumbaam nday kumbaamul nday exécutif bi muy présidence de la république mooy dicte magistrat yi lu ñu war a dogal ci bërëb àttekaay yi. tu prends l'exemple du dossier Khalifa Sall. C'est comme ça que ça s'est passé. Tous les magistrats, après ça, ni retouché, ni prennent ni décision, mhm. ils ont eu des promotions. Oui. Ah, le président ne voulait pas, et pourtant, il ne ah oui, le président de la République. Ne voulait pas du tout. Ah non, non, non, il m'a appelé ce palais pour me demander de ne pas toucher Ablaye Baldé. Résistance. Il soppi au moo xam président bi du wax dëgg bu waxee tey lii suba génnaat ci ba set ci du ndax ñàkk a respecté sénégalais yi. man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee deux mille dix neuf lay jeex. dina renouveler mandat boobu deux mille dix neuf su boobaa man pare naa ci. su boobaa man pare naa ci. pare naa ci pare naa ci. mais je pense que 31 décembre occasion la pour nga wax sénégalais yi ba xam 2024 da ngay présenté wu wala doo présenté wu oui wala non. du nekk oui du nekk non. dem nañ sax ba léegi. Sachin yi nga xam ni waxtu yi ci kaso bi la leen waroon fekk ndax dañoo détourné suñuy milliard ñoo naan dañuy porter plainte te mu wóor li nay sàcc lañ Macky Sall jël rapport bi leen jàpp daal di ko nëbb di xaar na ku ko génnee ñu mën laa toppee ku fësal ab document confidentiel wala bu kërësal ñuy wax ay waxi rapport rapport am na rapport man mi maa bind du lenn lu dul yow nee nga Mame am nga rapport bu ko épinglé Mame Mbaye ni la indil rapport bi jarul clé jarul télé jarul témoin jarul dara parce que leneen loo fa wax man du ma la déglu indil rapport bi lañ la wax indil rapport bi. waaye buñ ci yemoon mu neex léegi ñoo ñee dëkkee duñu sàcc. boole ci diñu fitnaal ak a jaay yaradiku ñoo yónni seeni ndaw jox leen ay jaase ak ngànnaay ne leen dem dal ci kaw képp ku génn di ñaawlu anam gi réew di fonctionner yabal leen ci média yi ne leen menacer leen ku leen neex publiquement te dara du leen ci fekk parce que ñun ñoo leen di aar. on fera face on fera face à toute sorte de mobilisation venant de l'extérieur. li ñu dem tànk Ousmane Sonko dama ne buñ fi gisee benn élément perturbateur ci ñun nag ñoo taxaw jënd suñuy jaas yi nu la simon ñun ñoo wut suñuy yet nu la simon ñun ñoo wut suñuy paaka nu la waaye yet yooyu jaasi yooyu paa yooyu du pour kenn koo xamante ni yaa ngi toog sa kër. donc fii la situation réew mi toll dafa am ñoo xam ni ñoom am nañ légitimité droit wu saaga. menacer ak dal ci kaw ñoo xam ne jotewuñ ak ñoom dara lu dul exercer leen constitution may muy saa yoo amee lu la metti sa réew mën ngaa fësal sa naqar ci mbedd mi am ñu wëlbatiku di leen menacer ak dal seen kaw te dara du leen ci fekk léegi nag lii lañ ne dafay jeex jeunesse bi dafay riposter ci anam gi mu gën a méttee et pas n'importe comment ñun militant APR ak suq yu ndaw ndawaan yi sax intéressé wuñu ndax kenn ci ñoom du génn ay bokkat lañ mais autorité yu mag yi leen di yónnee aka wax loo bi yoon ñooy nekk les cibles waxoon nañ leen ni ñoo ngi ci tànki mboole ministre PCA ak yenn directeur général yi recruté ay nervi pour ñuy dal ci kaw askan wi ñoo ngi seen adresse kenn ku ci nag information baa ngi daw ci suufu tunnel yi waxtaanu biir ni ki ñuy amal pour waaj la résistance waaye pour xamal leen ñoom autorité yooyee ko mucc leen même buggeen ngeen rawalee seeni njaboot liste nañ seeni numéro téléphone yi tax ñu mën leen tracé topp leen benn par benn lépp lu ñu bëggoon publier pour wal leen ne am nañ seeni contact ak seeni adresse personnelle mais bañ ñenn ci jeunes di leen woo di ci am problème moo tax ñu nëbb ci vidéo bii deux derniers chiffres numéro autorité bu ci nekk. waaye kii di Mame Mbaye Niang Antoine Diome Pape Malick Ndour Mansour Faye Doudou Ka Aliou Ndoye Abdou Karim Fofana Yankhoba Diattara Moussa Bokar Thiam Maguette Ndong ñii nga xam ni ñoo dàq recruter ay nervi ci nguuru Macky sàll xam leen ni ci tête de liste bi ngeen bokk bés bu situation bi dégénéré donc lii dànkaafu bu ñu bëggoon lancer la jëme ci bépp ndawal Macky Sall xamal leen ni lu xew du ngeen ci mucc bu ñu paree ci loolu nag ñëw ci taxawaay bi sur le terrain foofee nag remarque bi ñëpp def mooy ñu bari dañuy dem pour manifester te duñu aar seen bopp jël seen matukaay ar sa bop nak ci citation yu ni mel bi ci njëkk moy bañ di exposer sa karam moytu caméra de surveillance ñuy tecc rond point yek ñi def ay live booy génn nanga sol sa masque mo xam masque contre poussière yi wala ñuy jagleel ay saxar ba ci sax kagul pour bu situation bi tangé bo ci am baxna ba mu lèr la ni bo taxawé ci sétu kenn mëna la baña xamé beneen bi mooy te seetlu nañ ne moom la takk der yi di gën a jëfandikoo pour tasaare mbooloo mi mooy protéger wu ci gaz lacrymogène yi ba ci événement yi mujj bu ñu jëlee par exemple cortège Ousmane Sonko saa yu takk der yi bëggee tasaare mbooloo mi pour dem jàpp ko dañuy sànni benn grenade lacrymogène gars yi daw ñu mën a jot ci moom am na ñu bëgg pour protéger wu nag ci situation yu mel. maanaam résister ci saxaar googee ñi ko mën ñu wut masque gaz dugal seeni sàkk ñi amul les moyens pour jënd masque yu mel nii dañ leen di woon benn astus boo xam ni réew yu réussir seen révolution yépp daan nañ ko jëfandikoo loo xam ne ku nekk mën nga ko defaral sa bopp da nga wut benn bouteille boisson bu mag boo amee bu deux litres mooy gën nga daal di dindi saañ bi dagg ci suufu bouteille bi comme nii ngeen ko gisee après nga natt bouteille bi ci sa kanam ba mu leer la ni di nga am espace boo mën a dugal sa bopp nga daal di marqué partie boobu ak benn forme U pare dagg forme boobee nga créé boo ci noppee nga natt ko xool ba xam amul benn air buy dugg après étape boobu nga jël benn xottu canette daaldikay ay bënd bënd ci suufam après nga dagg bopp kanet bi bo paree duggal ci ay donju kër yu xaw a ndaw mooy tax nga mën a noyyi te gaz bi du am effet ndax këriñ bi da koy filtrer gannaaw gi nga remplir kanet bi ak ay coton ba mu mur donju kër yi boo noppee ci loolu nga boole kanet bi ak bouteille bi nga daggoon comme ci vidéo bi ba mu leer la ni bopp bouteille bi fi kubéer bi waroon nekk mu ngi laal coton bi nga wut nag sa kol kole leen ñoom ñaar ba mu leer la ni amul benn air bu dox seen diggante bul fàtte aussi warale partie bouteille bi nga daggoon ngir bañ mu gaañ la boo ko solee boo paree foofu nga essayé waat masque bi xool ba xam yaa ngi à boo noppee nga wut élastique mbaa leneen lu mën a taaweeku mën a doon chambre air bu pneu oto nga daal di bënn bouteille bi bënn yu sew takk ko ci ñaari côté yii ngir boo ko solee masque bi bañ a sumeeku boo ko defee ni mu waree di nga mën a résister gaz lacrymogène ak situation bi nu mënti demee mais bu leen fàtte surtout. yóbbaale vinaigre ak morceau yi ngeen ko mën a tooyalee ngir mën ci noyyi au cas mu am ñu amul masque te gaz bi sonal leen. lii mooy première stratégie de combat bi sur le terrain mooy fexe ba mën a résister mën a moytu les gaz lacrymogènes. beneen stratégie bi mooy occupation terrain bi foofu nag. liñuy conseil manifestant yi moy ñu baña doon ay nombre yu ndaw lu mu tuuti tuuti nañu doon ay groupe 50 personnes parce que ci biir manifestation yi daf ci am ñoo xamni dañuy civilu duñu sol ay tenue tak der ñoo ñe ñooy ñew nak di japp ñi nga xamni dañu jël seen yoonu andu ànduñoo kenn donc li gën moy quartier bu ci nekk ñu formé group groupe bu personnes yu bëree bëri tas leen groupe bu ne tasaaroo ci ay zone yu wuute pour mën a disperser tas li mu takk der yi fexe ba ñu doon ay cinq cinq wala dizaine de policiers ba gendarme ci zone bu nekk yan endroit nag la manifestation yi war a takkarnaasee maanaam fan la ñu war cibler pour mbir yi am impact loolu defoon na ci taxaw seetlu ben bagnar yon lien dans la description de la vidéo bi moy surtout les autoroutes mo xam route nationale ak péage ak VDN yi ci phase bobu nak manam bu ngeen occuper terrain par exemple yene ngi don bolo di gis à 100 wala 200 mètres groupe tak der yu bëgg dal sen kaw mba nervi premier réflexe bi moy créer barrière sen digënté ak ñom buñu len leen ben yoon liñu gëna min fi Sénégal nak moy tal ay pneu ba tay baxna pour créer barrière sa digënté li nga jamar lool ngir mu baña avancer fi nak la sol masque de protection di gëna amé ndariñ ndox ñom instant yi ben pexé dong lañu am muy sànni grenade lacrymogène te bu fekkee ngeen jël seen matukaay duñ leen mëna dara duñ leen mëna dawlo bu ñu insister nag di avancer pour dal seen kaw bu boobaa mën ngeen commencer attaquer waxoon nañ ko ci genre situation yi il faut que gars yi di jëfandikoo ay cocktail molotov di ko sànni naka lañ koy defaree cocktail yooyu noonu mënuñ ko dugal ci vidéo bi ndax YouTube daf ñuy censurer waaye def nañ ci description bi benn lien bu ngeen mën a jaar bu ngeen demee aussi suñu page Facebook xalaat TV officiel occasion la pour xamal leen ni mooy suñu benn page bu ñu am Facebook am na ñeneen ñu créé ay fausse page di mbubboo xalaat TV waaye jàpp leen ni bii mooy benn page bu ñu am à part YouTube def nañ fa lien yi moom ngeen di njëkk a gis ci kaw bu ngeen duggee ci page bi ngir xam naka la ñuy defaree. voilà kon gars yi andil naa leen vidéo bi ngeen bëggoon. kon imam lan ngay mujjé wax gay ya imam euh wa di wax rek Wa alo way ya lan ngay mujjé wax gay. di len wax ne deg na fi ñu wax fi vidéo xalaat tv bi amna solo nako ñepp bayyi xel waxon nañ ko ci live aussi kani xex bi mi ngi bëgg bari di bëgg yagg bus bu nekk ñu am xex ak ñoom gis li ci ni mi démé war nañ ci am jangat nit day am xel li tax yépp di jafe ci ñun mooy grenade lacrymogène yi ñuy sànni bu ñu ko sànnee ñëpp daw daw boobu tant que bàyyi wuñ ko duñu gañ a xeex teel grenade lacrymogène ñëpp daw tant nit ñaa ngi daw ay grenade lacrymogène xeex bi kenn du ko gañe te dañuy jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko il faut que ñu mën a résister grenade lacrymogène teel gi du dara lan la nit ñi daw laa xamul daw gi ñuy daw ci grenade lacrymogène teel képp ñëpp daw pour la loolu il faut mu dakk ñaareel bi il faut que ñu waxoon naa ko fi ut ay masque defar ko yoo xam ban façon masque bu lay mën a tax mën a résister taxaw même bu grenade bi tàkkee saxaar bi nga mën ko résister ñaar yii bu amul mënuñoo gañe xeex bi xeex xel lañ koy defee xel ak fit xalaat TV indil nañu leen vidéo wan nañ ko kon nañu bàyyi xel ci loolu loolu mooy protection aar sa bopp aar sa bopp ba saxaar gi du la mën a sonal aar sa bopp ba boo déggee tell doo daw nit naka la mën a déggee tell xamul lu mu doon muy daw xanaa bala nga daw da ngay xam li ngay daw lu mu doon bu ñu weesoo phase protection aar sa bopp ba li nga xam ne mooy tax ñoom ñu am ndam te mooy lacrymogène yi ñu fexe ba bu ñu ko sànnee du ñu yàqal suñu liggéey ak suñu xeex loolu dañ ko war taxaw insister ci maa ngi ciy insister. waxoon naa ci xalaat tey ba ñëw waxaat ci maa ngi ciy waxaat daan ci waxaat mu dugg seen bopp yi benn yoon préparé wu ba bu lacrymogène yi tàkkee du ñu wàññi dara ñu mën a xuus ci biir résister parce que ñoom du ñu du ñu yëkkati fetal bu loolu weesoo ñu préparé ay cocktail molotov comme ni mu ko waxee xalaat TV defar ay cocktail molotov yu bari ngir bu policiers yi gendarme yi nga xam ne ñoom dañ leen a yónni pour ñu faagaagal ñu te ñi leen yónni mooy sàcckat yi ñu mën a jaamaarloo ak ñoom ndax day fekk ñu waajal suñu bopp ci saxaar gi ba mën a xuus ci biir saxaaru lacrymogène yi buñ ñu songee ñu génne cocktail molotov yi attaqué leen duñ leen attaqué waaye buñ ñu attaqué ñu attaqué leen cocktail molotov yi da ngeen ci defar ay milliers lu ngeen ci am doyul immobiliser seen oto yi bu leen fàtte kakatoof yi cocktail molotov kakatoof ñaar yëpp ngeen duy ba mu fees préparé wu te li may wax du nekkul ndakaaru kese de Sénégal gépp la Sénégal gépp laay wax Sénégal gépp la ñuy woote li vingt neuf trente ak le trois Sénégal gépp bi yoon wax naa ba sonn wax a wax ak jiji ñu xëccu pour ñu continuer xeex bi Ousmane Sonko génn wax ñëpp toog wax nañ bay bëgg a dee ba affaire bi commencé woon na jàpp xeex bi taxaw binjoon am ku fa dee ñëpp jóg war a xeex Ousmane Sonko woote ab ndaje wax ñëpp ñëpp tëddi nelaw loolee tant que yéen a ngi koy def duñu gañ a xeex Ousmane Sonko bu wootee ngeen bàyyi lépp xeexaluñu Ousmane Sonko suñu bopp la ñuy xeexal ak Sénégal li ñuy xeex du moom la ñuy xeexal Sénégal la ñuy xooxal ak suñu ëllëg nañu xeex bus bu nekk ba keroog Macky Sall di wàcc lii dafa war a leer si bopp nii li ñu fi wax sànq ne wuy nañu arrêté dépense yi am ñu naan mënuñu ko duñ ko yónnee ku mu neex nga yónnee ñun li ñuy xeex xam nañ ko doxuñu ci ay sentiment doxuñu ci ay dégg maam yu kenn xamul réew mi fi mu toll ñu ne da ngay xeex ba noppi nga ne yow sa ndey sa bàyyi la gën a réew mi say mbokk yi ngay jox dépense moo la gën a réew mi baax su la neexee am nga ci droit mais ñun am nañu droit na ñun lépp loo xam ne bu ñu ko jëfandikoo réew mi soppi ko dañu ko jëfandikoo bu ñu waree xiifal waa Sénégal daañu xiif bu ñu taxaw xeex kenn ku nekk fi la xeex bi toll am na ñoo xam ne xeex bi yemul leen ci we am na ñoo xam ne xeex bi jaral na leen ñu téye seen dépense na duñ ko joxe ndax dañu ko jox ñu di ko lekk xeexuñu ku nekk fi la xeex bi toll ku nekk boo waxee feeñ bi ki topp ma fi daanale mooy drapeau russe yi ma fi dégg ñu koy wax nañ ko teg ci suuf ñun toppatoo wuñu russe waxuñu ak russe jote wuñu ak russe dara dégg nga de xeex bi Macky Sall moo ñu ko teg nekk ci biir réew mi ñu jóg war a xeex ak moom. naan ay drapeau russe pour lan bi lu mu jëriñ bu ñu jaawale ay xeex soxlawuñu drapeau russe te képp ku fi wax drapeau russe Macky Sall ngay liggéey ku ko fi yëkkati rek boo ko xamee boo ko xamul Macky Sall ngay dimbali ci ay lay yu nar a yëkkati ne gis nga leen russe nekk seen ginnaaw russe nekkul suñu ginnaaw kenn nekkul suñu ginnaaw ñoo nekk suñu ginnaaw bopp ba a xeexal réew mi il faut mu leer ndax lan dëkk yi fi tudd ay Burkina Faso ay Mali dëkk yooyu ngeen di wax mais dëkk yooyu Russie mosu leen a jàppale dëkk yooyu dañoo xeex ba nangu réew ma soog a ànd ak Russie dëkk yooyu dañoo xeex ñoom waa réew ma Burkina Faso ñoom waa Mali ñoo ànd ak seen imam di ko xeex jiji jiji jiji yow ci loo looy def ni non demal rek TikTok laa nekk TikTok laay lijjanti góor jigéen yow ma ah, nañu concentré wu waa TikTok dañ leen soxla nañu concentré wu le moment est grave euh, Mali ak Burkina gi ñuy wax di leen méngaleeg Russie ñooñu ba ñuy xeex pour nangu seenu réew booba Russie ñëwagu fa Mali askanu Mali gépp a génn xeex ànd seen imam di ko def seen révolution ba nguur ga ñàkk doole armée di ñëw Assimi Goïta ñëw coup d'état nangu réew ma ba mu koy def boobu amul boobu waa Russie ànd ñoom moom. ba wa Mali di xex xamuñu kuy Waris ba ñu nango rew ba tok ba Assimi yor ko ci la dem ak Waris ci suñu ak ñom ay accord bu len jaawala yu bokul di wax lu ngeen maîtriser wul relations internationales les rapports diplomatiques entre les États c'est des sujets très sensibles lañu di wax lo xamne amuñu ci maîtrise dañuy yak xex bi yakal Sonko yakal Sénégalais yi génne leen ci xex bi mën ta dugg ci xex bi ta ñew Sénégal waxna ko ba tay nit nak lu mu xamul du ci dugg du ci xuus dañu jog tak suñu fit yi am jam te jog xexi waye lu gi nek nga dañ nako defal nañu wuy walla wuy walla bayi len loolu burkina faso non tamit kazalik dañu xex ba coup d'état nangu rew ma ci président ba ba rew mi teggu sen loxo ñi xol ku ñi and ak kuñ dul andal yeen nangoo bu leen réew mi ci makka Sall do wax wax ndax lan baña a ndax lan bëggu leen dépenses yi manqué il faut que ceeb bi ñëw waa diaspora bi yónnee ñëpp di lekk xeexu leen parewu leen pour xeex li ngeen bëgg moo yomb ñemewu leen ay sacrifice du ngeen def benn sacrifice benn don de soi bàyyi leen dépense yi ngeen di yónnee diaspora bi ñu ne non il faut que ñu yónnee diaspora bi ah, na ñëpp xeex loolu mooy lan na ñëpp xeex est ce que ñi nga yónnee xa est ce que ñi nga jox ñuy lekk Sénégal ñi ngi xeex naka ngay dundalee ay ponkal yu lank duñu xeex que seen moromu malien yi seen moromu burkina yi ñëpp di xeex ñoom ñu ne duñu xeex ngeen toog ci diaspora bi di dëggal na dañoo war a yónnee xaalis Sénégal ñu di ko lekk tant que ñi ngi lekk duñu xeex ku xiif jóg fippu il faut que ñu xam li ñu bëgg kon waxi euh, Russie bu ko fi kenn wax Russie taluñu taluñu Russie ñun ñoo war a xeexal suñu bopp ba am li ñu bëgg bu réew mi tegoo suñu loxo ñu xool ku ñuy àndal ak ku ñu dul àndal waaye àggaguñu foofu ba nit bala mu ne naam ne fa defagu leen dara ñu war a taxaw xeex àndandoo ñu wax waxi Russie képp ku koy wax Macky Sall ngay liggéey képp ku dugal ci xeex bi drapeau Russie ak képp kuy wax waxi Russie Macky Sall ngay liggéey ñun xe ñun ñu Russie soxla wuñu Russie soxla wuñu drapeau Russie drapeau Sénégal la ñuy yëkkati soxla ay doomi Sénégal yuy xeex yu am fit soxla wuñu ay mboqat ak ay tàppet yor seeni làmmiñ di wax ak ñoo xam ne bu sacrifice gerte ñu war a def ay sacrifice ultime wala suñu njaboot yi ñu war leen privé ay dépenses privé leen ay ordonnances privé leen ay lépp pour que ñu jóg xeex xaalis boobu ñu leen waroon a yónnee ñu lekk ko ñu def ko ci xeex bi mobiliser ko jox ko ñuy xeex les vrais que ñooñu lañu war a dimbali ngeen taxaw lànk du ngeen ko def. imaam cinq moo ñu dese nag parce que dogu day pare jot. waaw jox naa la kàddu gi pare naa ci. kon gaa yi kon ñu tàggatoo ak yéen fii ba suba ak jàmm déggal ñi naan ma bul coupé yéen li ngeen bëgg dafa yomb wax jëmale fu ngeen xamul ngeen bëgg joxe leen cotisation yi dimbali boy yi daa ngeen jëf jaar naa leen ndogu jàmm comme boobu ngeen xewal juma mubarak ndogu jàmm yal nañu yàlla boole baal tabaski tam xarit baal ma àq baal naa la nangam nangam waaye yow màggal gi ñu màggal ak jàmm waaye yow gàmm gi ñu nangam ak jàmm nii rek nii rek bu bu ngeen paree yéen ñëpp jubali ca football ba ñu rey seen doom yi rek xéwal nuyu naa leen yaa ngeen jëf waa imaam ñu